الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي mbokku téléspectateur Kossy TV président Ahmed Youssouf Ben zulum ànd ak euh, Cheikh Moaz Niass di domu, Cheikh Sirif Tidiane na Thiam mu wéyalaat euh, ziar bi waaye dikk na tey si man bahol Fayda fii ci Kossy ñu ngi noonu di dugg si si néeg maam Astou Diankha li yëpp nag delluwaat mbattu la sa ndaa la nga ñaan ñu may la nga sant ñu dolli bërëb bii lañ ko ñaanee woon si ziar Kossy waaye nag yàlla defaat na tey jii mu andat ak euh, sëriñ bi Baye Moaz Niass ànd ak Euh, soxna Penda ñu kon ñu ngi noonu di dugg si si néeg maam Astou Diankha di ñaan yàlla ñaan yi fi ñaan yëpp yal na yàlla may ñu ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Seydou Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sëriñ ñu ngi eh, yëkkati ay kàddu nuyoo di la ko jotale ay kàddu sant ak ay kàddu ngërmande maa ngi ànd ak sama sëriñ maam Samba Niass ànd ak sama rak ak Youssouf Bengelloune di suma responsable politique nekk président conseil départemental bu Kaolack ñu ànd ak sunu soxna Penda Diallo moom mooy aawam bi mu ñëwee wote si boobu ba léegi mu ngi fii di ñu gunge ñu ngi ànd aussi ak Fodé ja nga xam ne moom tamit suñu rakk la ak Moussa Bitey ak Farox mi ñuy wax buur te ñu nekk ci wàllu euh, média yi ñëw tey pour delloo njukkal ndax yàlla ku ko war a sant ci bunt bi mu la mayee foofu ngay taxaw santee ko te ñun bi ñu jógee doon sàkku si lii nii nga xam ne yàlla jotale ñu ko te jox ko suñu rak muy président Ahmed Youssouf biñ waree tàmbali dañoo dem ci sa soppe ba sa àndandoor bi ci yàlla sa xarit bi sa taalibe bi Zeyda yaa na caam mu ne ñu jóg leen ngeen dem si man ak maam yi suñoo ànd keroog bu leen toog jóg leen ngeen dem ñu taal suñu oto départ faal ñaga ci turu sama rakk Ahmed Yusuf Benjelloun ci turu sama yaa nen ci turu njaboot gi yëpp ñu ngi lay wax jaajëf faal yal la fi yàlla yàggal may la wér ak wérle waaye ñu ngi lay wax tamit lépp loo xam ne dafa war a yombal mission bi may ñu ci ndam te teg ñu nag ci yoonu njub woo xam ne danañ ko mën a def ci ak màndu ak njub lii bu amee xam nañ ne mooy sa ndam ndax askan wi ñu dénk lii rek lañ yaakaar ci ñun kon gannaaw bi ñu ñëwee sant la ndollal gi ñuy uut loolu rek la mission bi réussir réussir goo xam ne ñëpp danañ xam ne benn sëtuma Ibra Fall moom la Mayra Fall roof ci moom sirub defar département bi mu koy defar pour wéyal mébétam ak bëgg-bëggam ci département bi nga xam ne mooy département Cheikh Ibrahima Niass rabbi Allah lii moo nekkoon kàddu yi nga xam ne waxoon naa ne danaa ko yëkkati suma paree jox baay bàcc moom tamit mu joxe ay kàddoom président benn moom tamit yëkkati kàddu ci làmmiñam nga dégg bu ko defee nga ñaanal yàlla bala moo gën a guddi ñu bàyyi la ndax yow sa temps surtout ci waxtu guddi dañ koo soxla ndax xam nañ ne seen temps ci ñaanal ñu la ki nga xam ne nag daf lay ñaanal waxtu yam la war a ñaanal da koo war a sakkanalal asalaamaaleykum wa rahmatulah yaram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 di nuyu mbooleem sa njaboot gi yëpp di nuyu mbooleem njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu di yëkkati nuyu boobu mu bàyyi si suñ wayjur suñ sëriñ muy Zeyda Yanina Thiam di kenn si kër Maulana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu di sa soppe disa taalibe disa xarit di ku la bëgg nga bëgg ko ngir moolana cheikh ibrahima fall radiallahu anhu tey ñu ànd ñëw fii ak kenn si njaboot gi koo xam ne bam xàmmee ba léegi lu baax rek la bëgg bim duggee si faydutu Cheikh Ibrahima bii si buntab Zeyda yi ne caam lu baax rek la bëgg lu baax rek si lay dox ba 2012 mu engagé wu dugg si politique si ndigalal sëriñam muy Zeyda yi ne caam lenn rek ma ko sax a dugg liggéeyal askanu Sénégal waaye liggéeyal askanu Siin Saalum waaye liggéeyal askanu Kaolack waaye liggéeyal feratu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass si bunta Mawlana Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu moo tax comme ni ko président Alhaji Saliou loo waxe ba ñuy sàkku cheikha yebal leen ñu ñëw si yow nga ñaanal leen yàlla teg leen si yoon wi ba tey yàlla may leen ndam mu ndam lu ñu sante yàlla ñëwaat fii saroon di sant si yàlla saroon lii mooy tànk yi ñëw sant si yàlla saroon si bunta Mawlana Cheikh Ibrahima Fall lama la waxon barki dembu wax la ko tay moom lay kii di Ahmed ben Bengelloune tay ñu jël cër bi moy président conseil conseil départemental bu Kaolack mu tek ci loxom kër bi nekkee ci lej lej mbir yi dama la ko wax lang sa def lu ñëg la tey ma waxal ne la ñu ngi sàkkuwaat nga ñaanal lañu ko yàlla di wutaat ndollal si yow xen bii xoyof tooy si moom nga xam ne dana si liggéey liggéey boo xam ne mbooleem conseil président conseil départemental bu fi mas a jaar na nekk xasaka si liggéey bi mu war liggéey moom ba nga xam ne jaami yàlla yi yaakaar ko ba teg ko fu ñu ko teg ba ëllëgee su waree jeexal ñu ne ko doyalaguñ rogatal nda do yàlla guñ sakun ngi sàkk ñaala yàlla yàlla yombalal ko ko ke yàlla sàmm ko que wëttu ko xaar ko dimbale ko musal ko ndaw la loo xam rek bon lii moo tax ñëw di sàkkuwaat ñaan di gën a xeesalaat suñu taalibe ci ndigalal suñu wayjur suñu sëriñ nga xam ne moom ñu xebal ñu ñëw si yow suñu di la ñaanal yàlla ñu fay fekk yéen la yàgg di la fi fekk yéen yàgg di la fi fekk di la ñaanal yàlla yàlla defal la wér te la fan wu gudd nga yàgg ci kanam njaboot gi yàgg jiite njaboot gi yàlla gën laa dimbale néewal ñëpp teg seen bët. di daal mooy suñuy tànk ba ñuy jël temps di wax asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ bi Fall nuyu gën a sell ci nuyu yi di wax jërëjëfee ma Ibra Fall jërëjëfee ma Ibra Fall jërëjëfee ma Ibra Fall sant bi ñu sant ma Ibra Fall nag dañ koy sant ndax pour ñun sant ma Ibra Fall wax dëgg yàlla mooy sant Mame Baye Niass sant Baye Mame Baye Niass nag mooy sant Cheikh Tidiane sant Cheikh Tidiane mooy sant yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sant yenent bi nag jubluñ ci lendu rek pour tamit julli ci moom daal te sant yàlla sant yàlla sant yàlla ndaxte mbir mi mbir yàlla la te affaire bi wane na ko su doonoon euh, victoire bi xaalis sa koy joxe ñu jàkkaarloo ñu ëpp xaalis fop su noon lijjanti la ñu jàkkaarloo ñu ëpp lijjanti fop waaye mbir mi wane nañ ne mbir yàlla la yàllaay joxe nguur yàlla joxe ndam tan nañ ko soob mu jox leen ko alhamdulillah te loolu nag dañ la ciy sant ndax buñ jógee rek lañ ñu yebal ci yow ne dem leen ki nga xam ne ne moo jubóog yi boromam ki nga xam ne ne moo wéet ak boromam ginnaaw buñ sante waa Kaolack nag ñi nga xam ne ne ñoo ñëw ba pare te ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax a gi ñu ci gërëm dañ ci jaar gërëmaale mboolum kilifa diine moo xam fu mu munti bokk tarixe bu mu munti bokk ñoo ngi ko ciy gërëmaale di ci gërëmaale tamit kilifa diine yi nga xam ne ne ñoo ngi nekk sax te bokkuñu sax suñu diine gi maanaam waa jàng bi ñoom ñëpp ñaan ñaan nañ ci waaye yow moom dañ la ciy beral cër moo tax ci yow la njëkkee bu ñuy ut ci yow la njëkkee kon day jaadu suñu amee ñu jaaree euh, ko ñu njëkkee ci yow pour nga taalal ñu loxo di la sàkku ñaan sàkku ñaan pour ndax nekk lu ndaw sàkku ñaan pour am ndam ndax boobaa ndamu waa taalibe Baay yëpp lay doon ndamu ma Ibra Fall lay doon ndax ñun sët maam Cheikh Ibrahima Fall la donc nga ñaanal ñu mbébét yi ñu am ci Kaolack Ndangaan ak population Kaolack Ndangaan yëpp yàlla dimbali ñu ko ñu réaliser ko ci lu yomb mbébétu yi ñu am Kossy nag wax dëgg yàlla nga ñaanal ñu tamit mu sottee ci ñun ndax loolu mooy suñu ndam. lépp lu ko si manqué woon maa ngi ñaan yàlla ci juróom at yi nga xam ne ne man lañ teg ci bopp département bi yàlla na ko yàlla jaare ci man mu sotti am na loo xam ne sax nekkul cëru président conseil départemental dépendrul ci moom waaye lépp li dépendre ci man incha allahu rabbi xam ne ne da ngeen ci jot lii dépendre ci man tamit naa dem jooy ko ci autorité en tant que kilifa département bi mi xam ne askan man lañ tànn ma dem jooytu ko ba ñu réaliser ko ànd ci nguur gi maa ngi tàllal loxo tamit nguur ji di leen musu musuma leen sori sax mais di leen wax ne ne ci ñun duñ ay opposant Kaolack lañ faral intérêt Kaolack lañuy ñuy ñoo ngi leen di tàllal loxo tamit pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi ndax ñun jubluñu ci lenn lu dul rek liggéeyal askan askan kaw askan Kaolack xam leen ne ñaar ñi gañe ci élection yi ñaar ñëpp ay ndongo daara lañ moo tax xam leen ne incha allahu rabbi kër diine yi dinañ leen gën a taxawu mooy kër diine yi nag Sénégal dëkk jullit la waaye bàyyi mu benn bàyyi mu benn diine incha allahu rabbi waaye nag fii di kër maam si Ibrahima Fall moom ah dangeen xam ne ne seen taalibe falu na incha allahu rabbi incha allahu rabbi eh, yoon bii ma doon wax buy jàppale Kaolack ak Touba Sanoxo la incha allah kër jara incha yoon boobu moom bëgg nañ ci def tout pour mu jàppandal yàlla na sottee suñu suñu mandat joytu nañ ma ndox mi ci dëkk bi incha allahu rabbi nga ñaanuñu ay am nañu ay partenaires yoo xam ne ne pare nañ pour ñu accompagner ci nga yombal ñu ko bu ma ñëwee tamit joytu nañ ma ci jumaa ji ñuy tabax man ne loolu moom amoon naa mébét bu yàgg duma xaar sax bañ installé ma ma doog ko def mais dinaa ci def sama participation boo xam ne sama poste bopp lay doon incha allahu rabbi suba dinañ leen indil juróomi tonn ciment incha allahu rabbi loo xam ne sama poste bopp lay jóge incha allah ma barkeelu ko ci liggéey bi di ba ñuy mën leneen di ko ci def incha allahu rabbi xam leen ne jug nañ jàppale kër diine yëpp ndax Kaolack Ndangaan dëkk diine la ñun nag dañoo gëm ne ne diine gi daf ñoo war a jëriñ fii nii ci kaw suuf laataa sax ñuy dem bal sàq loolu la ñuy wax dividende bi maanaam njëriñ gi nga xam ne ne diine gi war na ko am pour ñun warul yam sax rek ci so euh, ay bal sax fii nga ko war a gisee ci saayir donc dañoo war a fësal gën a jàppale kër diine yi ndax loolu dana fexe ay ñii lu ñuy wax tourisme tourisme religieux ñu ñëw gën a visiter dëkk bi moo tax yoonu yoon bu moo la doon wax ne mi xam ne nag mooy jottale route nationale bi ak cause def nañ ko priorité ñoo ngi ñaan nguur gi mu jàppale ñu ci dinañ ci góorlu ndax dina yokk dana jàppale béykat yi waaye tamit dina tax nit ñi mën a ziyaare si te boobaa nit ñi dinañ gën a mën a jublu cause yi incha allahu rabbi loolu na seen xel dal dinañ ci def lépp lu ñu mën pour cause Bamba Ñas fës na ba pare mais pour mu gën a fës waaye tamit dinañ jàppale bépp kër diine ba nga xam ne ne pour mu gën a fës ndax nag Sénégal dëkk diine la nit ñi dañu fonk diine te ñaan ñi jiite liste yi mu di man di sëriñ bu ay nit eh, kër ay ndongo daara lañ ay ndongo daara lañ amuñ lenn lu dul diine gi incha allah rabbi dinañ taxaw diine gi yëpp diine yëpp tamit dinañ leen taxaw dinañ taxaw diine ji l'islam bi surtout kon bokk maa ngi lay sant di la gërëm di wax ne yàlla nga fi yàgg fi lool te wér yàgg fi lool te wér nga yàgg fi lool te wér yow ak say say rak waa kër gi yëpp ak sa mboolum taalibe sa mbokk saayir ak sa mbokk baatin maa ngi lay jotale nuyoo Sayda Yane na Thiam suñu yaay ji ñi xam ne tam ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolum kilifa diine jërëjëf sëñ mbooloo mi sëriñ mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ne gannaaw bi nga xamee ne sant nañ yàlla te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant Maulana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass. mu ne ñu ngi sant Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass. di sant mbooleem xulofaaw mi. di sant mbooleem xulofaaw mi. li ko dalee ci Baye Saliou Cissé mooy. bu njëkk bi. mu ne Baye Serigne Aliou Cissé mooy xalifa bu njëkk bi. Alaaji Abdoulaye topp ci. Alaaji Abdoulaye topp ci. Cheikh Ahmad Daam topp ci. Cheikh Ahmad Daam eh, eh, eh, topp ci. Cheikh Ahmad Mahi Ibrahim Niass. ki mu ne mu leen di siyaare. te di leen ñaanal yàlla. xel bi oyof ci moom moom itam lool. mu ne di ko ñaanal yàlla en bi oyof ci moom lool amin gannaaw loolu mu ne gannaaw loolu ndam lii. ndamal Cheikh ndamal Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ndamal Baye Mbaye Niass ndamal Baye Mbaye Niass Baye Cheikh Omar Touré la ndamal Baye Cheikh Omar Touré la ndamal eh, Baye Ousmane Ndiaye la ndamal Baye Ousmane Ndiaye la eh, ndamal eh, Serigne Ibra Fall la ndamal Serigne Ibra Fall la ndamal Baye Aliou Cissé la ndamal bay Aliou Cissé la ndamal mam Abdou Niang la ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ak mu ne ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ak baay fii ci Kossy. jamono bu jafe bu tumuranke. ci jamono bu jafe te tumuranke. ñu nekk fii ngir jëmmi yàlla. ñu nekk fii ngir jëmmi yàlla. ba tey yëf yi àgg tey jii yëf yi àgg fi war a àgg yëpp. bon ñooñu ñu ngi leen di ñu gërëm. mu ne bon ñooñu ñu ngi leen di sant te ñu ngi leen di gërëm. mu ne may jii nga xam ne nag moom la yàlla may doom ji. yàlla nekk may goo xam ne dana jëriñ Sénégal yëpp. yàlla na nekk may goo xam ne dana jëriñ Sénégal yëpp amiin. ndax eh, eh, senegal ñoo ñooy ñi ko woteel. Eh, dëgg la am na foo xam ne foofu la tëbbu. mu ne dëgg la am na foo xam ne foofu la tëbbu. waaye li tax mu jël. kii ndam lii. mu ne li tax mu jël ndam lii. képp koo xam ne ci kaw bokk nga ci. képp koo xam ne aju nga ci kaw rek bokk nga ci. bon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp. sëriñ mu ne bon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. ndam lii yal na ko jik ndam lii yal ko jik amiin. te xam ne lépp yàlla xam yàlla mooy ki ko moom. mos naa wax mu ne moom mos naa wax ne. huit président de la république du Sénégal. huit président de la république du Sénégal. du fi jóg mukk. mu ne loolu du fi jóg mukk. waaye diw nag. waaye di diw nag. moom mooy toxu. loolu mooy liy toxu. maanaam feeg eh, pencam yàlla. mu ne feeg pencam yàlla. ñii war a nekk président. ñii war a nekk président. yàlla signé na ko pare. loolu yàlla signé na ko ba pare. kenn mënut mu ne loolu kenn mënut ci dara. doy doy na ci tegtal. Eh, Macky Sall bi mu nekkee ci campagne bi. Sall bi mu nekkee ci campagne bi. keroog ñëw na fii ci Kossy. mu ne keroog ñëw na fii ci Kossy. bañ paree ñu ànd ak moom ci néeg baay. mu ne biñ paree ñu ànd ak moom ci néeg baay. mu julli ñaari rakka. mu ñaari rakka. dal di ñaan ñu ñaanal ko yàlla. dal di ñaan ñu ñaanal ko yàlla. dem néeg maam Asu ñu dem néeg maam Asu Jànqa. mu julli ñaari rakka. mu julli ñaari rakka. ñaan ñu ñaanal ko yàlla. ñaanlu na fu nekk. ñaan lu na fu nekk. waaye ñaan yëpp buñ dajee rek. waaye ñaan yëpp buñ dajee rek. te fekk yàlla wax na ne yaa toog. te yaa fekk yàlla wax na ne yaa war a toog. dafay may lijaa ba ñuy ñaan. dafay may lijaa ba ñuy ñaan. yàlla def mu toog ci réew mi. yàlla def mu toog ci réew mi. benn campagne rek. campagne rek. coobare yàlla la. mu ne loolu coobare yàlla la. ñii itam nga xam ne ay doomi daara lañ. mu ne ñii tamit nga xam ne ay doomi daara lañ. muy sëriñ buub. muy sëriñ buub. ak Seydina Ben ak maam Youssouf Ben mi nga xam ne nga xam ne ñoom la yàlla jox raaya bi. nga xam ne ñoom la yàlla jox raaya bi. Eh, eh, eh, su nekkoon ne. mu ne bu nekkoon ne. ki mu ko doon xëccoo taalibe baay la moom itam. ki mu ko doon xëccoo la moom tamit. mooy. Pape Demba bi muy Pape demb bi tey. waaye kii la yàlla tuddoon ne moom mooy dégg wiiw. mu ne waaye kii la yàlla tuddoon ne mooy dégg wiiw. bon ñoom ñaar ñëpp. mu ne bon ñoom ñaar ñëpp. wala ñoom ñeent ñëpp. wala ñoom ñëpp. Kaolack rek leen taxoon a jóg. Kaolack rek moo leen taxoon a jóg. loolu seen ànd mu ne kon loolu yàlla na feeñ ci seen ànd bi amiin. ñu bokk ànd liggéeyal kawla ñu bokk ànd liggéeyal Kaolack. lépp lu aju ci Kaolack. ak lépp lu aju ci Kaolack. Eh, eh, di ñaan yàlla yàlla rafetal liggéey bi. mu ne di ñaan yàlla yàlla rafetal liggéey bi. te hmm. bu pal gi am foofu rek. te bu pal gi am foofu rek. mu ngi ñaan loolu yàlla na ko yàlla def. sëriñ mu ne mu ngi ñaan loolu yàlla na ko yàlla def amiin. wax naa ne jamono ngi ñëw. mu ne wax na ne jamono ngi ñëw. bëri na réew waxuma la Sénégal de. mu ne waxut Sénégal de. waaye bëri réew yoo xam ne. waaye bëri na réew yoo xam ne. président yi taalibe Baye la ñuy nekk. yi taalibe Baye la ñuy nekk. yal na ci yàlla mu ne yal na ci yàlla boole Sénégal amiin. Eh, eh, eh, ndax ni alfayda yaatoo. mu ne ndax ni alfayda yaato di jëriñ jaami yàlla yëpp. di jëriñ jaami yàlla yëpp. ak ruux yëpp. rajo bi xam ne tey moom la imaam Assane tuddee Alfayda. rajo bi nga xam ne moom la imaam Assane tuddee Alfayda. ñu ngi ñaan yàlla yokk leeram. ñu ngi ñaan yàlla yokk leeram amiin. di ñaan rakkam rakkam yi fi nekk itam yàlla wattu leen te guddal seen fan. di ñaan rakkam yi fi nekk yàlla wattu guddal seen fan. Tidiane Aliou Cissé. muy imaam Cheikh na Ahmed Tidiane Cissé. ak rakkam Cheikh Maay Cissé. ak mu ñaan yàlla. sëriñ mu ne mu ngi ñaan yàlla amiin. turandoor bi nga xam ne moom la ko imaam tuddee. turandoor bi nga xam ne moom la ko imaam tuddee. nangu na nangu na. rajo bi fu nekk fu nekk mu ngi fay dem. rajo bi fu nekk mu ngi fay dem. waaw ñu ngi ñaan yàlla. mu ne ñu ngi ñaan yàlla. yàlla may ko télé boo xam ne. yàlla may ko télé boo xam ne. aalam bi yëpp dañ ko seetaan. aalam bi yëpp danañ ko seetaan. amut sikk sàkk ne loolu yàlla dana ko def. amut sikk sàkk loolu yàlla dana ko def. baax. mu ne ñu ngi sant yàlla bu baax. te xam ne lii rek mooy li war a am. te xam ne lii rek mooy li war a am. yàlla amal na ko. yàlla amal na ko. ñu ñaan yàlla mu jig leen. ñu ñaan yàlla mu ñu amiin. ngeen futteeku lëggéeyal jamono bi. ñu futteeku lëggéeyal jamono bi. lëggéey boobu. lëggéey boobu. mën naa ñàkk am Kaolack rek. mu ne mën naa ñàkk am Kaolack rek. jamono yëpp mën na cee jëriñu. jamono yëpp mën nañ cee jëriñu. toujours damay wax ne. toujours dafay wax ne. njëriñ li nga xam ne. njëriñ li nga xam ne. juróom yi nga xam ne. juróom yi nga xam ne. président ak lu mu doon. président ak lu mu mënti doon. su juróom yooyu. bu fonkee juróom yooyu. Sénégal yëpp am na ci. Sénégal yëpp am nañ ci. bu njëkk mooy njàng mi. bi njëkk mooy njàng mi. réew xam-xam moo koy amee. réew xam-xam moo koy amee. te wax na ko. mu ne te bàyyi wax na ko. ñaareel bi. ñaareel bi. mooy mbay mi. mooy mbay mi. mënta dem te dund amut. réew mënta dem te dund amut. ñetteel bi. ñetteel bi. Euh, euh, euh, mooy hôpitaux yi. mooy hôpitaux yi. fokk ni ñi dañuy feebar dañuy faju. mu fokk nit ñi danañ feebar te danañ faju. ñeenteel bi. ñeenteel bi. mooy justice bi. mooy justice bi. fokk jaam yi dañ dañ teg yoo xam ne di. ñuy dimbale di àtte. mu ne jaami il faut ñu teg ñoo xam ne ñoo leen di dimbale di àtte. E, e, juróomeel bi nag. juróomeel bi nag. mooy yoon mooy yoon yi. E, yooyu moom ko liggéey rek. mu ne yooyu moom njiit lu ko liggéey rek. jaami yàlla yëpp nañ ci. yàlla yëpp danañ ci jëriñu. ndax mu ne ndax joxe moom mënta dajal ñëpp. mu ne waaye yii juróom moom. E, e su njëkkee ci réew. bu njëkkee ci réew. ñu fonk e, ñu fonk ko. ñun réew mi ñëpp jëriñ nañ ci. réew mi yëpp danañ ci jëriñu. surtout mbay mi nag. surtout mbay mi nag. Baye dafa waxoon ne. mu ne dafa waxoon ne. bu la liggéeyal mbindeefu yàlla téye. mu ne bu la liggéeyal mbindeefu yàlla yi mune bayal so baye mbinde fi yalla yeb dañ ci dund mune so baye mbinde fi yalla yeb dañ ci dund mune waxtu wo eno sa lekati njiw mune waxtu wo eno sa lekati njiw jëm ci tol ba jëm ci tol ba su yalla wonon ñi xam ñoo si war a jëriñoo su la yalla wonon ñi nga xam ne ñoo wara jëriñu ci jiw bobu yeb bu saxé ba genn ba mag ngay depp mune kon da ngay depp mune ne bayal rek mune waye bayal rek ñëpp dañ ci jëriñu ñëpp dañ ci jëriñu moo tax ñu leen ñaanal yàlla sëriñ mu ne mu ngi ñaanal yalla amin seen nisër yëpp. suñ nisër yëpp. yal na si Sénégal jëriñu. yal na si Sénégal jëriñu amin yal na si Sénégal bu si jëriñoo rek ñëpp jëriñ nañ ci. Sénégal buñ ci jëriñoo rek ñëpp jëriñ nañ ci. taalibe daara ngeen. taalibe daara lañ. sëriñ Mbuub. sëriñ Mbuub. Eh, eh, eh, man yalwaan nañ ajuma ci foofu marché ci bitig ñoom yalwaan nañ ajuma ba tàyyi ci foofu ci marché Kaolack ci bitigu baay baaram Mbuub mune bobu ñu ngi jang fofu daara. Ah, doomi daara nak mune doomi daara nak waxtu xamé né waxtu xamé né eh, eh, yalla may nako mu taxaw. yalla may nako mu taxaw. dal na dama bëgg a eh, pour liggéeyal sama réew. dal dama bëgg jog pour liggéeyal sama réew. mom dana xam lan moy liggéey réew mi. Mom dana xam lan moy liggéey réew mi. ndax ñëk na ci daara. ndax njëkk na ci daara. jàng na am xam-xam. na xam-xam. li yalla téré li yalla téré xam nako xam nako digle xam na ko. lim digle xam na ko. bon ñu ngi sëriñ mu ne bon ñu ngi ñaanal yàlla. yàlla guddal fan yi lool. yàlla guddal fan yi lool amiin. te may te may ñu wér amin te pal gii. te pal gii. yàlla dem ba daj mboolem pal yi. yàlla dem ba daj mboolem pal yi amiin. yàlla man ko yàlla na ko yàlla na ko def amiin. ci barke surub guddi gi nga xam ne. guddi eh, eh, guddi la. guddi ajjuma la. sëriñ sant mu yëpp. mu ne guddik àjjuma gu jot dañuy daje fii ci néeg Mayoro Fall di def dog boo xam ne Mayoro Fall moo leen ko sant pour jaami yàlla yëpp. waaw ci kanamam mu koy mu ne ci dundam ñu ko daan jàng ci kanamam mu koy jiite. ak guddik ak guddik altine muy dimanche. jàng fii. mu ne yàlla maye tamit bu subaak jàmm dañuy jàng kaamil fii. ci barke siru yooyu. ci barke siru yooyu. mbootam. ak siru koosi ak mbootam. yal na ànd ak yéen daa na ànd ak ñun daa iman. ci zaahir ci ak ci baatin. ñu ngi sant bu ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di gërëm. gërëm eh, eh, yaa nee na mi nga xam ne. di gërëm yaa nee na mi nga xam ne. lépp mu ngi bàyyeekoo ci moom. lépp mu ngi bàyyeekoo ci moom. am kóllëre lool. lool. waaye yàlla may na ko mu xam te ràññee. pay baay ñëpp la. pay baay bi mu ne ñëpp la. jullit ñi tam ñëpp la. jullit ñi tamit ñëpp la. Eh, eh, mbindeef yi ñëpp la. mbindeef yi tamit ñëpp lañ. Eh, ngi yaakaar mu ne bon ñu ngi yaakaar ne. lim mébét. lim mébét. te yàlla jaarale ko ci toppam. te yàlla jaarale ko ci toppam. saasam la suñ saas la saasi saasam la. suñ sens la sensu réew mi la. yal nañ ko sensoo yaare bi amin yàlla may ko fan gudd lool amin te may ko wér. may ñu lijaaba xabool fatu may ñu xabool ak fatu amin sant bu baax sëriñ mu ne ñu ngi sant bu baax mu ne duñ ñu fàtte mukk alhamdulilah mu ne mu ngi ñaaneel yàlla jamono bu nekk di ñaan yàlla nangul ñu di ñaan yàlla nangul leen amin ci saayir ak ci baatin amin salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Fall feeling the